Y'en a ñu ko dagale yenn mouvement ay doomi xaram yoo xamante ne booy di utiliser nit ñi comme ça. fexe nañu ba jële fi góor gi. wa fal Macky. ñu ngi xeex. teewul ñu ngi xeex. mais la cas ma Macky Sall ak gis nga li passé. y' a quatorze personne mortes. effectivement mais nit ñi xanaa léegi ay doomi raam noonu xanaa wala ñoom ñoo gën nday nit ñi. ñoom ñoo nu gën. ñi dee ñoo leen gën. nguur kenn du ko am si lekkante nii opposant ni pouvoir. ñoom na nanu bàyyi seen xel si population bi. Mhm. nanu bàyyi xel man nag yéen xool nguur jarlu ma ko. ndax ku fa dee yaay perte. ok léegi wax nga léegi ci cadre Ousmane Sonko bi mooy 14 morts yooyu nga xam ne li ko indi woon mooy problème mu Ousmane Sonko ak laal na ma violé na ma violé wul te cas bi jusqu'à présent ba léegi leeragul donc mu ngi ci justice di dem a ko ñëw donc est-ce que yow pour yow ci sa xalaat ci sa jàngat maanaam jotul ñu classé dossier boobu sans suite parce que ay fitna rek lay jir moom Adji Sarr wala la moom xool dalu si. parce que amul avocat nit avocat dof la am. ay maître El Hadj Diouf mais kooku mais kooku xam nga boo wut avocat da ngeen ko xam ne nit ñi da nga ko respecté. su waxee kàddu. nit ñi xam ni lii message la quoi. maître El Hadj topp ak Adji Sarr waaw. Adji demal waxal. Adji Sarr bu ñu koy gaañ du ko fekkee. Me El Hadji ba nekk na fi député du peuple. nekk na fi lii nekk na fi lee nekk na fi lële. nee ma moom moom moo libéré kan. moom moo musa xol plaidé kan. nee ma moom El Hadji ba ban njëriñ. surtout affaire u Adji bu doon jigéen. ju baax. bu doon gor. dootoo dëggal sax làmminam mais mënu si Sonko dara de. moom mënul sattel Sonko. parce que Adji Sarr si jàgg la. ñun xam na Adji Sarr bu baax a baax quoi xam na nañu ay faram xam na nañu fu mu nekk xam na nu mu demee ba pare ñu wax si ñoom wax na sëriñam wax na yi tantaam bi ko jur wax na Adji amoon na doom ñam na nga ko ñamaat ko xam ba gis na ministre yi ñoom dana am seen ay gel spécial saa ngi dem Dubaï ñam waaw saa ngi dem Paris ñam ñun na ni nax rek mais wax Adji ngir yàlla ma may ñaan Sénégalais yi nan ko suul buñ ko sax may bës Adji Sarr caga caga cinq mille dix mille ñu makk sa suul yi sax soo bëggee makk sa xott yi pour Sénégal fii affaire de ay daanu amul fii mille francs sax nga daanu sa làmmiñ su réyee sax ak jigéen sax mën na duul sax nga daanu sandi sax nga daanu Adji Sarr moom nday nit ñi ñaan ay song mais lan la Adji Sarr xaru jigéen ah. ay saaxa war nu ko ñam. loolu la ñu jël ko bugg ko kolo motif. ne affaire du Sonko boobu. avant di am man maa njëkk génn def sama benn live sur Instagram lu te te rappel. bi ñu toogee Macky Sall xëy suba ni suba de couvre-feu di am. su guddi gi waa Minna ñoo njëkk mer. ñu gën def sunu ma gën def sama live Instagram. dafa temps man xoola teewul ay fa teewul ay fajar xoola la mu diggal si. dig jàpp nañ la ci waaw. jàpp na ma si. Mhm. ma bi ma génnee la mhm. sa man sama man bi may mhm. sa mère bi may gaañu mu fekk si biir kaso bi. après la ma libéré. bi ma génnee na ma dem jaal gi. waaw sama ma da ngay daw dem beneen dëkk nga toog fu tuuti quoi. diggante boobu nag la Macky Sall ak lu Sonko génn. kon affaire boobu kon boobu fekku la fi. non fekk ma fi. d'accord que bi sa mère gaañoo man dama génn. dem quoi pour noppat sama esprit tuuti quoi. Mhm. sometimes laa dégg ni au Sénégal la ñu takk. Mhm. ba am xoolal quatorze personnes mortes. léegi xoolal quatorze personnes yooyu dee léegi. Mhm. léegi lu bu wet fan la mujjee. ah ñu bàyyi xel ci élection bii di ñëw. moo war a gën a metti. te Macky Sall amul candidat. benn qualité am xool benn candidat muy Sonko. Macky Sall dafa war wàcc mu ñëw. mu may ko jàmm. bataille psychologique. affaire du ay xeex. du ay guerre. affaire carte la. Sénégal métti na tar na réew mi métti na. Macky Sall ñoo ko Abdoulaye Wade ñoo ko fi jëlee. nga def fal Macky. Macky Sall bi ñu koy fal maa ngi taxaw buntu palais man maa ngi taxaw buntu palais bi muy bi muy dugg biir palais. maa ngi taxaw. mu nekk ci oto bu ñëw bi nii di jubile gars yi. maa ngi taxaw mais Abdoulaye Wade bi mu koy romb maa nga fa. kon Macky ñoo ko fal. Macky Sénégalais ñoo ko fal mais tey Sénégalais ñoo ko bëgg jëlee. te ku nu fal ni lay demee. marché yi bare na. grève yi bare na. dee yi bare na. crime yi bare agression bi bare na sàcc yi bare na. bi bare sacrifice bi tamit bari na. Mhm. sacrifice tung mhm. ne mbaa puune. mais xoola booy bi nu jël xoola ngor fekk suul ko te xam nu ko suul. ko suul am beneen gars bu ñëw si benn doomu jàmb fekk fa liir wat ko ni ko su ma ñëwee yow laay rey. Mhm. Hmm? te loolu ba mais baa doolo du def loolu. baa doolo du reyee. baa doolo du digle ñu kay ñuy rey. borom alal kay ñooy digle. man man dañ ma yàgg tegal ay dil dafa lii ma fay la ma aju. ndax pour ñoom man benn band laa bu yoree wala man loolu su ma liggéey. ñoom dañ ma ko yàgg tegal. na ma defal lii ñu fay defal lii ñu fay la. ba ay élection yi bàyyi fii la ma fekk élection yu paas yëpp. ay rey nit. non yi ngay seen xoolal campagne yi ngay seen ak caravane yi ngay seen. ñi nekk si kanam ñëpp ay bandi lañu ay gangster. ñëpp ay xam nga ay jaas yi 37. waa maire si gannaaw. ñu nekk élection xam ne li may wax ma am naa gars yi tournée. Mm-hmm. ànd ak PS tournée ànd ak Alvaro tournée ànd ak Macky Sall tournée. Mm-hmm. membre am bokk fii wër Sénégal gis gars yi ñoom ni ñu amee violence. Mm-hmm. oui élection Sénégal moo metti. da ngay gis élection yu passé ñaata nit ay dee. ñaata nit nekk ci kaso bi. Euh, euh, yi ah ñaata doomu jàmm nañ fi jàpp. ba léegi si jeel bi. waaw ñi ñuy génnee boobu mooy ñu siiw ndax ñooñu ñooy nit quoi. ok temps yi aussi dégg nañ ngay def ay génn def ay sorti yoo xam ne da ngay dal ci ànd sàmm jikko yi naan dañ koy politiquer wax euh, lan moo waral loolu te dañ lay gis ci seen i manifestation nga ci bokk saay bu ñu organiser benn rassemblement da nga ciy ñëw euh, wax sa xalaat dox ci sa xalaat temps yi lan moo waral nga génn commencé dal ci ñenn ci ñoom ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ànd sàmm ji seen jikko. non man ànd sàmm jikko yi. xam nga ànd sàmm jikko yi ñi mu fa ñi daal mooy ñu mu fa respecté man. Mhm. man ànd bokk ma seen mouvement de. waaw mais da ngay teew à chaque fois ñu organiser yaa ngi ñëw dañ la ciy gis. tout récemment rek gis nañ la ci. maam Maxtaar bu Jamra. maa ngi koy nuyu. maa ngi nuyu baax kooku sama dafa bokk su man quoi. ñu bokk combat. mais ànd sàmm jukko benn tur la rek. benn benn xoolal slogan la comme APR PS comme mouvement ti sungom wala comme gerte caaf. wala AIC. dagajeeg wala acee dëxin benn tur la rek tu la mu fëndi nag li mu fëndi man mooy defendre cause de góor jigéen man su ma ñëwee foofu nag ba gis ku mel ne xool kërim xurum xaax ma jéem a xeeru mel ne kuy xeer loolu loolu moo koy def góor jigéen góor du góor dafa war a def nday yow kërim xurum xaax laay waxal de góor dafa war def yëfu góor yow naka ngay nekk nii si taxaw si may yow yow pourtant man xam lu mu findi uh-huh. li mu findi lii nii miim réew uh-huh. fii mu góor jigéen du fi fii kenn du fi jaay puub la li may kaas ngay kaas uh-huh. mais loo may xeeroo mel na ku yor sa waaw ah, yow loo may xeeroo genre affaire yooyu mu may def di naan nii di nii. waaw mais loolu c'est vrai que. moom dafa moom loolu loolu loolu. moom moomu ma. papaam moomu moom yanamaar la nekkoon. moo njëkk génn Y'en a ni ku bokk Y'en a marre ku nekk xool góor jigéen nga. moom si rappeurs yi yëpp rappeurs yëpp. moom sëlun si yóbbu tës. ak ndax jabaram. moom moo làkk ñaata jabar la fase sa waay bay sa yow tànk la commencé. xam li gën a bëri mooy teg ndayu nañu xel yaa xam ñooy xel. sa borom sikkim yu gudd yooyu teg xel mais man mënoo teg ndayu maayen fokk yu. ok d'accord euh, dégg ko loolu xam nga donc xam naa ni seen diggante bon. parce que aussi yàgg nañu seetlu yàgg nañu seetlu yàgg nañu seetlu même ba sa clip bi sax. man Karim gaw ma ndayam. sa dernier clip classe Karim gaw ma ndayam. Mhm. loo doon gaw ma ko mais li ngay combat sama combat la. Mhm. ñoom fu ñu jotee dama fay ñëw. Mhm. te bu dee góor la na ma moom na ma romb rek na ma xii wala xaar. am na rumeur buy génn. du dara li ngay def dëggul si yow. billaahi yow saaga nga yanamaar. saaga nga ñëpp. moo fu njëkk taxaw saaga fi wala kii. Nicolas naan naan Nicolas mi ne jiñ peere bu kenn jox sama seede. moo tax ma génnal ka nday nag son boobu noonu. waaw parce que ci clip bi yaa ngi naan ko. góor jigéen ñaari borom ñaari tur yi. si. Baye Fall ñu xam na lu ko moom moom marché Tilène la dëkkoon fii si si ganaar yi. Uh-huh. kër yi ñëw gàllem xool ay ganaar nga jégg ay puubu ganaar. xëy uh-huh. na jamono neex tey. Uh-huh. te jamono sax yorul dara. mënuñu góndi moom paa yooyu lay teg xel paa yooyu muy ànd ba mu sigi mu gudd yooyu mhm. lay ñooñu duñ dem élection ñooñu duñ bay mouvement ah. mhm. dañuy teg xel mhm. yow mënoo nekk chaque mouvement nga gën a ticket di jaay opposant boo koy nekk da ngay yor yoroo fuus dagage di teg xel ni ngi naa ay kërim ñitu dëgg mi kërim lan la fi def nee ma moo liggéey li Sénégal mu ngi sensibiliser mu ngi def ay vidéo sa waay bi ñuy sensibiliser moom sensibiliser wul. Mhm. ñun bi ñuy kaas. Mhm. kërim kaasagul. Mhm. ñun bi ñuy dem kaso. demagul kaso. yow combien de fois nga dem kaso. cinq fois xaw ma six fois. six fois yëpp lan moo la yóbbu kaso. ay problème Sénégal rek. ak bon. la vérité. <laughs> du ma fi nekk fii fi nekk naan ay raay ak nii li am laa lay wax man du ma tricher. ok d'accord mais ñoom ñu def lu gën a bon loolu. li ko nëbb. waaw bàyyi lu nëbb xeeñ. ok. ay paa jiite leen di nganda nga naan ay wéy gis naa si si mun bi muy si mun bi muy kaaloo naan nii. léegi dafa am benn ah, rythme dafa am benn rythme nii am na benn rythme yi ngay teg ndayu xel bàyyi ko. léegi léegi am na benn rythme sa paa yooyu noonu xool ku si dee. bi leex daan la différé. Euh, doo teg la ay màggat yu am ay cent ans di leen marcheloo. déwén góorgóorlu Baye Fall. ok merci mbokk yi ñuy seetaan gis ngeen ko émission bi day woy di continuer ba léegi 10 000 problèmes mooy suñu invité mais 10 000 temps dafa benn rumeur boo xam ne donc mu ngi am ci Sénégal ci réseaux sociaux ni ñaa ngi koy dégg ndànk-ndànk euh, benn responsable bu mag boo xamante ne ci opposition bi la bokk yaa ngi dégg jege Ousmane ko trop donc bokk ci nga xam ne day xeex intérêt Sénégal rawatina nag ci loo xam ne tubaab yi dañ ko téye. yaa ngi dégg di responsable bu mag ci mouvement bi naan FRAPP dégage ñu ngi koy di ko accuser ay ñaari jigéen jigéen yu mu ëmbal ak yooyu yow information boobu jot nga ci. non loolu jot ak moo ci mais lu nëb rek xeeñ. Mm-hmm. waaw lépp dina leer. Mm-hmm. ñoom seen biir la rek. ok waaye lu neex. Mm-hmm. ñëpp ko bëgg. rawatina nga am moyen. ah nekk ci gouvernement bi. loolu neex def. léegi dimbali yow yan. bu siisaloo. bu siisaloo. lu fi yekkul Macky amul na nga ko jëli. nan di waxante dëgg quoi lan la waxagu Macky Sall ay daga ay bêtises. ay dili dañuy dix problème bu taxee ñu lii rek ñu yóbbu ko. tey xool Khalifa Sall kii dix mille problème ak ak Khalifa rappeur. baa mi Wally Seck yóbbu leen ko a kaso. c'est ah. temps li ko yóbbu kaso. Mhm. li ko yóbbu tax na yóbbu leen kaso. Mhm. am na beneen sëriñ bu gënaat waxaat ko. Mhm. ni Wally Seck day takk takk suuf. nañ ko yóbbu. man su fekkee man li ma wax yóbbu ma. yow soo waxee ñu baala ma loolu moo ma yëm. man d'accord naa li ma wax yow. li ma wax man d'accord nu yóbbu ma boo ko waxee. nu yóbbu la est-ce wax yi benn la parce que yéen tamit seen biir wax parfois yéen activistes yi surtout rappeurs engagés yi day ëpp ah. man sam bopp man man ñenn ñi moom bu laajee xorompole ma xorompole. Mhm. bu laajee ma teppil ma teppil bu laajee saaga ma saaga leen. Mhm. parce ñoom. quatre na ni déggee. mais article quatre-vingt bi dafay bañ loolu. wax nit ci sama article laa ne man xam ban laa nekk. daa maa ngi article deux cent vingt et un. loolu day xaar loolu ay article article xam nga kan la mooy dëgg. muy awwalu maa ja'ala mukallafan tasxiixul imaanihi. loolu mooy dëgg mais article un ak article loolu écriture bu nit bi ay loxo ko bind. ñun xam nañu wax ñun bind yàlla. <laughs> <laughs> yàlla nan wax ni mais pas ay article temps article les constitution ni yow da ngay taxaw biir parquet ni ko dàq jàng wax ba tawri la ni la non article mille huit cent quatre nga ki ñëwaat ni la article temps temps bu dee benn aay rek bis bi maa ngi tàmbali ñëpp xam nañ ko li leey sur yàlla raxmaane borom xew loolu koy dindi kan mooy changé boobu bu article article bi ñu def nii assemblée nañ ko woote ay nit ñoo toog assemblée nii lii mooy constitution bi ñu bind ko teg ko suuf yëfër bàyyi ko. ñëpp ànd ci. waaw mais ku ko fi ku ko violé kay war nañ ko teg ci yoon normalement. ñoom ñoo ñu ko violé loi bi ñoom ñi noon nit ñi. Uh-huh. waaw ñu rey puune yi. Uh-huh. ñoom ñuy sacrifice nit ñi. Uh-huh. ñoom ñuy tëddee doomu jàmbur ñoom ñuy jaay nit ñi doole. ñoom ñuy masloo nit ñi. ñoom ñuy jël nit ñi dañuy jël yëpp si carte di leen xeexloo. dagale maire yeeg paa yëpp leen si biis. sa carte mooy fal bu la kenn biis. sàkk suñu milliard ba pare bërëm penu ginaar. ku jël sàcc def ko job li si xëy ko gont joobuloo doo musa laal ndayu mandat